lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production a distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères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 mooy ku ñàkk soga soga lool ci soxna Jaaratullaahi Mariam Bousso bokk ci soppe yi ak taalibe yi yaakaar naa danañ la tàllal suñu micro laaj la ana yan kàddu rek ak ban yëg-yëg nga am ci barab bi bu tedd bi nga xam ne fi nga taxaw ana lan nga ñëwee. sëñ bi maa ngi siyaare di ñaanal soxna Jaaratu yaay yal na yàlla yokk leer si bàmmeelam fu ma jullee dama koy defal juróomi xuloo alaaw yónnee ko ko addiye yëg-yëg gi ma am sama xol sedd na bu ma fi duggee lépp lu ma doon metti damay day wér yaakaar gi ma nekk nit ñi yaakaar ma fa ma nekk may ñaan sa bureau social ba yàlla may ma kattan ak doole ba ma mën a dimbale néew doole yi nga xam ne soxna jaara leen doon dimbale man a liggéeyee soxna jaaratulaay sa darajee sëriñ Kara moom sëñ ko sa assuloo te yàlla may ko wér may ko yéen taalibe yi mbokki taalibe yi ma fekk fi ngeen di jëwriñ di leen ñaanal borom rajo bi yàlla na yokk ba yëg ko dafa mel ne bu déggee ni ngay waxee yëg-yëg boo bu kawe kawe ngay wax yow soxna Jaaratullaahi bu fekkoon ne da ngay joxe euh, da ngay da ngay soññu jigéen ñi ana noo leen soññee ci seen diggante ak soxna jaar ana naka lañ koy royee maanaam walis ñëw ziyaar noonu rek dem am na ay jikko yoo xam ne soxna si da koo yow en tant que soxna di yaay ana yow ba looy looy wax ci loolu. li may wax si loolu mooy soxna ku bëgg a roy soxna Jaaratullaahi da ngay am yar am teggin am dal ah, di def lu baax te yàlla tax bul bul def di geestu loo am yéene ko ñëpp. boo amee benn añ ak benn reer jëla reer ba jox ko amut a bañ man de noonu laay doxalee. fi jamono ju toll nga xam ne émancipation de la femme ak ni ñu ni ñu ni li bi fi mu toll ci mel ne dañuy def égalité te soxna si boo xoolee fii nga xam ne tey fii la tëdd topp ndigalul borom këram moo ko fi indi woon ndax fii du cosaanam ba mu ñëw ba des fi tey yow fi adduna toll maanaam soxna yi ne ci néegu sëy surtout ndaw ñi ndax mag ñi sax moom am na euh, rëcc ñu rëcc ci wet waaye ndaw ñi ana loo leen wax. ndaw yi ma leen wax xool na mu muñee woon na mu téye woon kër ga na mu téye woon daara yi soxna yi nañu muñ te jàppale seen goro yi jàppale seen jëkkër yi jàppale jarbaat yi jëkkër yi si kër loolu la ñu ñàkk moo tax problème bi am waaw soxna jaaratulaay benn la si àddina yàlla na yàlla yokk leen jazakallahu xayra waaw sëñ Murtada maa ngi taxaw ak euh, sëñ Mor Diop Diawbe sëñ Mor Diop Diawbe yaakaar naa duñ ko présenté kenn ci wàllu euh, kaaraange gi ci Touba te Touba moom dafa am ay euh, Touba garab la gu am ay bànqaas Porokhane gi ci bànqaas yooyu la bokk Euh, ñu fekk ko fii ci Porokhane ci barabu soxna si yaakaar naa wàllu kaaraange fépp fu mu nekk ci taxawaayam ci yoonu murit lu ràññeeku la lu sëriñ bi euh, gërëm la sëñ moo Diaw Diaw be Tawfekh Production mu ngi lay nuyu ana lan mooy sa taxawaay fii ci barab. jërëjëf noo ngi leen di siyaar baax ñëw na ngir siyaar si ki nga xam ne mooy sunu maam jaaratulahi di ki nga xam ne euh, siyaar si ko war na képp kuy julit waaye war na képp kuy noyyi ngir jëmmi xaadim rasul moo tax ñu ñëw siyaar si ànd ko ak taalibe yi ci barab bi ànd koy ak ñi nga xam ne ñooy yoonu murit ak yoonu lislaam yëpp. Euh, yaakaar naa buñ la fekkee fii nii euh, ci euh, sa am na sa casquette buñ la xamee ci wàllu kaaraange loolu yaa ngi koy wéyal ci barab bii nii wala da ñëw en tant que siyaar rek. ñëw naa ngir siyaar mais ñëw nañ ko ci wéyal ndax léegi nii mhm. gis naa fi leer naa Pape Diop. Mhm. bi jiite sémi waaye li ci gën a neex mooy bi ñu déparé Touba li nga xam ne mooy secteur gendarmerie waa gendarmerie dañ koo saloné loo xam ni lu ma gis la ngir euh, euh, daamar yi daw di daw ndànk ba ñëpp mën a agsi ci poroxaan bi nga diggee tam ba nga xam ne agsi nga biir poroxaan li nga xam ne mooy li police moom waa semi ak waa police li ñu am lépp gis naa ni indi nañ ko fii ci màggalu poroxaan maa ngi ci doon waxtaan ak leen naam Pape Diop léegi mooy bi ci des mooy jàppale leen encore ci ñu gën a ràññee kilifa yi xàmmee kilifa yi ba nga xam ne benn jafe-jafe du am li ci gën a neex nag mooy gisoo éléments yi door kenn wala ñu bunu xadaal kenn ci barab bi def ay rang yu mat dugal nit ñi ñuy siyaare di génn man loolu ma ci gën a parce que wàllu kaaraange ku ne xam na ni euh, kenn mënta dem bàyyi ko toujours ñooy jiitu ci kanam bon di leen ci félicité nag di ci félicité ki nga xam ne mooy ministère de l' intérieur ki nga xam ne mooy directeur général de la police nationale colonel Ousmane si di di di di gërëm ki nga xam ne mooy DSP euh, Wahab Fall nga xam ne ku taxaw la ci wàllu kaaraange ki nga xam ne mooy général Jémi Hamidou Lam ba ci ki nga xam ne mooy euh, euh, Assane Diop di got ak éléments yi nga xam ne ñoom ñëpp a fi nekk. way fi ngeen jëlin sa ñoo ma jëmmalul boppam soxna soxna jaara su bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et moo ci mën établissement Mbaye et frères